dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien xëy na ci jigéen ñeeg jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci seen biir néegu sëy ndax bëri na si ñoo xam ne seen i mbokk dañu leen di muur takk leen seeni i bagage ñu dem sëy waaye nag bu ñu fa demee musiba ak mbelengaan la ñu fay dund te nag seen yaayu jëkkër moo leen koy faral di tekk loole nag lu ñu nemmeeku la maanaam ci réewum Sénégal nettali gi ci yéenekaay gi di réew mi quotidien maanaam kàddu yi daan nay waar loola am na ci koo xamante ni nee na ab gorom moo ko tàqalee ak jëkkëram maanaam yaayu jëkkëram moo def ay xarxa fuuxa ci biir néegam ba ñu tàqalikoo ba mun munta jaaroote ab taal moom ak jëkkëram yéen kaay gi ba tey di réew mi ko di jee am na ku ci xëy di nettali nee na man sama yaayu jëkkër maanaam du téye sax samay doom maanaam bëgguma kenn ki nee na sama yaayu jëkkër dafa yaakaar ne damay yàq xaalisu doomam loole moo tax maanaam ma xool xool bu yegg yéen kaay gi nee na bëri na ci ñoo xamante ni ca fa ñuy sëy seen yaayu jëkkër moo leen di tekk musiba ak ba tey ci biir journal bi Jean Fall di ab psychosociologue la mu xam ne nee na mbir moomu maanaam lu fi yàgg la waaye nag jamono ji nga xam ne adduna bi dafa sopparñiku tax na mbir mépp daal di pëccëxoo waaye nag li nga xam ne moo koy waral bokk na si lu jëm ci wàllum yarin gi ndax bu njëkk dañu doon yar nit ci ana nan lay sëyee ana nan lay gérer maanaam foyer ma ana nan lay gérer ak njabootam te loolee jamono ji lu bari daf cee des yéen a kaay gii la turbine xëy si jafe-jafe yi nga xamante ni askanu senegal ñoo ngi koy dund maanaam ci réew mi waaye nag opposition bi ñoom dañ na patta pataaral yéen a kaay gi nee na 2019 ba élection yi bi daal dañuy nelaw waaw maanaam waxuñu dara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy dund Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass tey ji nag la ñu koy denc sa Kaolack bu juróomi waxtu jotee lu toll si juróom benn téeméer ak juróom fukk ci ay policier maanaam yóbbu nañu leen Kaolack yéen a kaay gii di réew mi ko di ci xalima ak Assane Samba ne coronavirus ma ngi def lu dara jërul ci réewum Sénégal jot nañu daal di jël ay matukaay Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ bàyyee terrain bi def ci wéet ministre de l'intérieur ak ministre bi ñu dénk wàllum transport dañ ko war jàppale ci wàll wi en tout cas fagaru moo gën jooju ndax jamono ji la gis xel dalu ci ministre de l'intérieur Aly wax nañ ne dana am ay mesures yees yoo xam ne dana ko jël ndax askanu Sénégal maanaam tëkkatuñu masque te rassemblement yi ma ngi mel ni tulle ak màlle ba tey ci biir yéen kaay gi ñu fekk fa monseigneur Benjamin Ndiaye li ko jaaxal mooy bàyyeeku gi nga xam ne askanu Sénégal bàyyeeku nañ ko ci woppi coronavirus Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu Aly mi ñu dénk kaaraange mi ak maître seeni élément ngeen tuur leen ci mbedd mi ngir nag ñu daal di forcer askanu Sénégal ñu jël mesure barrière yi maanaam ci nii wala ci naa yéen a kaay gii de la témoin nee na bëri na ay personnalité yoo xam ne ñoo ngi faatu ci coronavirus li leen koy teg maanaam dañuy feebar ba pare bañ a dem hôpital maanaam dañuy ragal li nga xam ne mooy stigmatisation loolee moo tax ñu toog seen kër ba feebar bi sonal leen te loolee nag musiba rek lay jur Blaise Pascal Cissé jiite kuréel gii di force Sénégal la mu xam ne nee na Macky Sall coronavirus maanaam xeex ko ci réewum Sénégal musuta nekk intérêt maanaam yitteel la yéen a kaay gi di Sud Quotidien wax na ci élection locale yi atum 2020 waaye nag muy tuulee dinañu ko daal di ndax dialogue politique bi nga xam ne ñoo si waxtaana ay wéer a ngi ni daje woon li ko waral mooy coronavirus yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak multi entrepreneur bii di Jean François mi nga xam ne xelam màcc na lool jëm si wàllum ressources humaines ak relations sociales daat nay wax ne Sénégal bokk na ci réew yi gën la ay biir entreprise yi wax na ne ci MEDES la bokk bu yàgg-yàgg te ko waral mooy MEDES organisation patronale la boo xam ne dafay défendre di taxawu ñi nga xam ne ñooy petite ak moyen entreprise yi wax na ci taxawaay bu bari boo xam ne war nañu koo amal ci instance de dialogue yi diggante état bu Sénégal ak secteur privé bi mais yéen a kaay gi de Libération mu ñu xamal la ñu njiitu réew di président Macky Sall niki démb ci conseil des ministres bi dafa mel ni yaramam a jël ay a kaay gi agresseur yi nga xam ne ñoo demoon ci Alexandre agressé ay chinois daal jël seen alal yóbbu leen am na ñaar ñoo xam ne teg nañu leen si loxo ni ki démb dañoo bëggoon a rëcc waaye nag mujj nañu leen a jàpp ndeke agresseur yooyu ki leen doon tawalal oto bi ab journaliste la am na ci koo xamante ni maanaam ci chinois yi la doon liggéeyee moo leen doon wan yoon wi yéen a kaay gii de la turbine wax na ci lakk gu metti koo xam ne am na ci états am na juróomi moo def googu bëggatu ko mel ni lu koy puus ngir mu génn jamono ji nee nañu Manchester United ma ngi koy roog a jeero Liverpool ak Manchester United ak Crystal Palace ñoom ñëpp bëgg nañu Ismaïla Sarr Kalidou Koulibaly Chelsea jamono ji ñoo ngi koy waxaale yéen a kaay gii de sunu lamb xëy na ci écrit bi di Rock Énergie jamono ji mën nañoo wax ne écurie la boo xam ne ci suux la jëm ndax benn victoire la ñu am ci at mi ak juróom benn ci ay défaite ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Tapha Kandji muy daal di dànkaa fu Tapha Tine nee na ko Boy ñaa boo gisee mu jël jublu si lenn lu daan la te Boy ñaa xam na ne maanaam mën na laa defal affaire